Pape dañuy door ak jëye ji nga xam ne am na ca diwaanu Màkk bu mhm. xante ba woon ca mun na yëf yi mi ngi gën di doy waar bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ji moo di le témoigner mu yëkkati ay kàddu yu mu nangoo ci ki nga xamante ji moom mooy premier ministre bu Sénégal yéen a kay ba ngook bilan ba 14 la woon léegi ñu ngi ci 33 mm, doomu aadama yu faatu ca màkk ay sénégalais la ñu Mahamad Abdallah Dionne yéen a kaay bi nañu moo ko xamle démb ci aéroportu Ndakaaru bi nga xamante demoon na fa euh, ne ji ñoo yóbbu woon pèlerin yi aju ci nguur gi euh, bu njëkk bi démb la Mahamad Boun Abdallah Dionne yëkkati yooyu euh, kàddu dellusiwaat mais ak xibaar bu doy waar ci yéenekaay bi moo di ca ña nga xam ne ñoo faatu ca buuxante ba woon ca mun na Mame Biram Diouf footballkatu Sénégal bi yaayam ca la bokk yéenekaay bi moo ñu ko wax ba tey tribune yamu ca ndax nee na moom Mame Biram Diouf dafa am ñett ci mbokkam yu mu yóbbu woon ca Màkka ñoom jël nañ ci ay gaañu gaañu waaye yàlla def na moom yaayam da caa faatu ñi nga xamante ne ji faatu nañ fay te ku ñu naan Abdoulaye Traoré euh, di gérant agence de voyage bi di Seydi Jamil moom faatu na ci Abdoulaye Traoré ñu gën koo xam ci Abdoulaye Diop Henri Grégoire Diop ci l'Observateur ñu xool moo nekk ci xët mu njëkk ma lu aju ci topp gi ñuy topp teranga ju lewul des traque des biens ak i moom la ñu fas yéenee jëlaat yéenekaay bi moo wax loole grand place dellu si waat ci waaye moom la mu gis mooy li nga xamante ne jii mi ngi xew bu fekkente ne dëggu na du neex ci Abdoulaye wat ak waa këram ndax Karim Wade ba ñu ko tëjee juróom-benni ati kaso alamaan ko téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett di ko toppee teraanga ju leewul léegi nag kër baayam nga ca point e la ñu bëgg a jaay ngir mottale ko alamaan ji yéen kaay bi ne nañu bañ ko waxee mu euh, njëkk mi ca wet na la ñu wàllu njàng meeg école yeeg yooyee Pape jàppal lu toll ci juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak euh, ñeent fukk ak juróom-ñeent 9549 yi nekk ci Sénégal 146 ñi ngi ci biir mi maanaam dañoo taa jamono moom it ci wàllu njàng mi la xëy ak lu aju ci jafe-jafe yi am ci njàng mi élèves yi seen niveau baaxatul jàngalekat yi ñoo gën a yées ñëpp lu aju ci njàng amuñu ay jumtuwaay yu doy yéenekaay bi xëy dem seeti inspecteur d'académie yi laaj leen lan la ñu ci xalaat dafa jël débat bi teg ko ñu waxtaane ko Aziz Ndiaye teg na ay gët Yaxya Jóob Yékini ñu xool ko sunu lamb bu dee yemb na ma ngoog Aziz nee na jamono ji yéeneem ak yitteem yëpp mooy delloosiwaat Yaxya Jóob Yékini eh, ci lamb ji Aziz moo wax loolee nee na nag Lo ak Euh, Eumeu Sène ak B52 intéressé wu ko nee na aussi tamit amul benn mbër boo xam ne dana dépassé ak yow euh, cachet bu million millions Aziz Alé Ndiaye ba tey borom Aziz production mi ngi ci sunu euh, ci l'observateur ñu xool ko ci xët mu njëkk mi ca wet ga sax la nekk moom Aziz li nga xam ne moom la fay wax moo di diggam ak Balla Gaye nee na demeetuñu noonu lu demeetuñu noonu Aziz nañu moo di lii di làmb ji ndax ba Yékini daane ca la ba Yékini daanoo kon ca la làmb ji daanoo Pape li fi président Macky Sall waxoon démb jagleel ko gaynde jigéen yi mu di lu rëy lu yaatu lu rafet la mu doon wax le quotidien mi indi woon xibaar boobee mel na ne am na lu mu ci xam ndax nee na président Macky Sall dafa bëgg def lu raw euh, li Macky Sall li Abdoulaye Wade defoon moo di daf leen a bëgg a jox kër ak ndàmpaay mu di prime mais pap mhm. ci gaynde yu jigéen yooyee jël si prime bi kii ngeen di gis nii mhm. di Khady Sène euh, Ndeye Sène bu moytul bu cay dem dañu koy boot yóbbaale baa mu yóbbaale pour pourquoi ndax euh, Juma Jang Jaxate daf leen invité woon démb mhm. ñoom équipe xam nga mooy seen marraine waxtaan di naan seen liminaat ak. Euh, seen yu daal mi ngi noonu. Uh-huh. léegi nag ba ñu demee bay war a jóg. Juma Jeng Jaxate dugal leen ci biiroom pour jëlee leen misir. d'accord dana bëggoon a ñawal. Uh-huh. soxna si nag ba muy dem moom nday seen dafa fakkastalu ci escalier. ay ay ay. tànk ba ne kàlla cat la. Hmm. cat la.